bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi dellu di sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant asayxul xadim di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboole mbokki julli yi nga xam ne yëpp ñu ngi déglu di seetaan rawatina suñu mbokki taalibe di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal itam sëriñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur moom it yàlla yàggal ko fi te ko di nuyu mboolem kilifa yi diine yëpp di nuyu mboolem jullit yëpp di nuyu mboolem taalibe yëpp bàyyi ñu kenn di leen nuyu bu baax yéen waa Daara ji Vision mu di site boo xam ne daanaka tur wi rek doy na sëkk ndax eh, lislaam ak eh, lépp mission bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi tënku ci jàng ndax ku ne xam na ne li njëkk a ci alxuraan mu di iqra mu di jàngal eh, te ku ne xam na ne itam ci daara la ñuy jànge kon bu ngeen jëlee site bi tuddee ko daara ji mu di daara ji nga xam ne dafa am gisuwaay bu sori ci wàllu diine ci wàllu xam kon loola dafay lu am solo loo xam ni ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax di ñaani seen site bi yokku yéen ñii fi teewut ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen jar di nuyu bu baax suñu soppee suñu xarit bi mu di Serigne bu Canessa bokk ci njabootu kër maamam di Seexul Xadim di ko dalal yi ak jéego yi di ñaan yàlla ko yàlla fay aw yiw ci barke Seexul Xadim ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ndokkeel yéen itam waa kay jërëjëf màggal gi li ko sabab mooy li alxuraan wax ni fa dakkiri inna faati sikree nee na nit ñu baax ñi nga xam ne dañ fee jaaroon liggéeyal seen borom ba jàll nañ leen di fàttaliku ndax fàttaliku biñ leen di fàttaliku nee na dafay doon aw yiw di yokk ci jullit yi moom la alxuraan di wax ni addina bam sosoo ba tey mës la soppeeku fu nit jaaroon jàll ba tey boo fa jaaree di jàll waaye fu nit jaaroon am ay pakk pakk ki ba tey boo fa jaaree pakk ya ma nga taxaw di la xaar fasiiloo fasiiroo fil ardi fansuru kayfa kaana xaqibatul mukassibina wala munsarina la ca teg yoonu yàlla ba tey soppeekul walan tajida li sunnatillaahi tabdilan walan tajida li sunnatillaahi tahwilan yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu wa hinda dikri saalihiina tansilu rahma te ku ne xam ne ne am na ñooñ yàllaa leen wormaal am na barab yooyu yàllaa ko wormaal am na bés yooyu yàllaa ko wormaal wa man yuhasim hurumaatillah fa huwa xayrun lahu léegi nag Mamour Diarra borom saam bokk ci ñi nga xam ne suñu borom moo leen wormaalal boppam worma ji weesuwul mu boole ko ci askan wu tedd mu di askanu mam Maharam Mbakke te alquran dafa wax ne wallazina amanu wa tabaxatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim duriyatihim ñee ne bu la yàlla tànnalee askan wu baax neena bo gor gor lo tuuti da nga am ci ngeene lo xamne xeyna sax sa jëf du lako may. legne nag bi ko suñu borom tanale askanu bax boole ko itam ak ki nga xamne nak moy lépp moy seexul khadim damay wax ne bok na ci garaat yi yonnati bi alayhi salatu wassalam salaam garaat bi ko suñu borom jaglel moy khatimun nabiina moy imamul mursalina moy tëjug yonente yi way moy njitul yonente yëpp 124 000 prophètes yi moy fakhaka dun ji serigne touba waxon ci tasaw di si xaar yonente bi moy sen jitt waaye ku ne xam na ne garaatub xaadim rasul sëriñ Tuubaa la ko la yàlla jagleel moom rek la yàlla jagleel ne mooy xaadimu rasuul moo tax mu ne woon maay xaadimu rasul fii suudaani maay ramu xarnu bi ani niiraani loolu sëñ Tuubaa ko waxal boppam. sëriñ Tuubaa itam moo ame garaatub sëñ bu mag bi sëñëb Abdoulaye Seck mën na maa firndeel tey boo ne woon cëpp ci aéroport Ndakaaru nga ne sëñ bu mag bi laa soxla ñu ne demal Touba Ahmadou Bamba xaadim rasul la Mamor Jaara suñu borom jagleel ko garaatu magi mag ki mag ñëpp yaay magam. waaye sëriñ Mor Diarra xoolutoon loola dafa jël mageel gi ak kilifteef gi mu am digganteem ak sëriñ Tuubaa jaay ko jëndi ak taalibe loolu mooy nangum dogal naaru gànnaar ba dane woon sëriñ Tuubaa li ma yéem ci yow mooy lu yàlla dogal mu neex la daane ko gëm yàlla yomb na waaye lu yàlla dogal mu neex la moo jafe te yow seexul xadim am nga ko sëriñ Mor Diarra jébbalu ci sëriñ Tuubaa jox ko boppam waaw may laaj ana fan lañu ñu a jàng ci histoire ku bokk ak nit ndey ak baay mage ko juróom-ñaari at jàngal ko xam-xam yar ko wëlbati ko sukk ci kanamam ne ko jox naa la sama bopp àddina ak alaaxira ana histoire fan lañ commencé jànge loolu sëñ Tuubaa rek ko commencé def. loolu nag dunduk Mamor Jaara borom saam googu ak lan doon jëf digganteem ak boromam te alxuraan nettali ko ta tatajaafa junubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamahan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna sax googu ma saxoon ci jaamu yàlla sax itam ci liggéeyal boromam loolu la ñuy màggal nag euh, ndax euh, bokk na ci kenn ci mag ñi euh, Cheikh Mamadou Fadil biñ ko laajee ne ko lan moo waral kasara jëm ngay jóge Touba di dem Darou Salaam jóge fa di dem ci sëriñ Afee ñan dane damaa laaj soxna wu bu sa sama bis mu ne ma xëyteelu weeru rajab la woon di ajjuma ca Darou Salaam moo tax bu bis bi accepté ma dem Darou Salaam sant suñu borom mi ma wàccee jamono defa mooy taalibi sëriñ Touba liggéeyal ko ba am gërëmam loolu mooy sababu màggalug Mamour Diarra feeñ jamono. doon taalibeb sëriñ tubaa liggéeyal sëriñ ba am ngërëmul sëriñ tubaa sëriñ bi seede ko yebale ay mag ci ñoom ci moom ñoo xam ne sëriñ tubaa ci boppam moo leen tarbiye ba gërëm leen ne leen dem leen Mamor Diarra seede seen gërëm bis boobu la ñuy fàttaliku muy ganek jamono Cheikh Mamadou Diarra mbakki borom saam mi nga xam ne moo di taawub soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso mooy waral màggalu Mamor jaara gi di màggalu Mbacke xewar ñoom yàlla dafa taggoon saxaaba yi ci lan dëddu àdduna sëñ Touba da koo bind ci xuqa mooy suxdun jooju mu doon wax maanaam dëddu gi dëddu gi nga xam ne ñoom moom la ñu doon xam nga ñun bu ñu def léegi addina tax ñuy def ñoom nag bu ñu daan def yàlla rek a tax ñuy def ki ngay topp yàlla rek ay tax nga di ko topp du doon ab cër du doon dombal tànk du doon aw tur du doon alal donte bu tax nga topp sëriñ bi nag da ko ca fekk ndax sëñ Touba da bi may sanc Touba ñaar a tax ma sanc ko muy daw nit ñi ak daw ci loxol nit ñi. bi ma fi nee cëpp njaar laa fi fekk muy winday pël ak saawi nag bi ma fi nee jàngit ñaara ma fekk muy ki yàlla rek ñor mu wut yàlla ak ki àddina ñor muy buuba yàlla kenn ci ñaar ñi jaaxaluma ki yàlla ñor muy wut yàlla bu dikkee danaa jàpp ci loxoom ba ne ko yàlla ngi ba àggale ko suñu borom subhaanahu wa taala loolu la ñuy day wasila ki àddina ñor muy mbubboo yàlla bu dikkee lam soxla ci àddina lépp dana ko ko jox waaye ëllëg yomal xiyam la ma yàlla di jox ak yónnente bu ma xooli bët na xam ne àddina la seqoon ak moom te jox naa ko ko ñi nag li taxoon ñuy toppe muy yàllay kese lillahi wa li rasuli daray àddina ma sa dox seen diggante Mamor jaara borom sam am na cër Serigne Touba na Mamor jaara lu ko yàlla jiitoo ca suñu borom nee na da koo soob moom yàlla mu def ko waaye nee na dug jaamu yàlla. Sëñ Touba ne bu dee jaamu yàlla nee na Mamor Diarra ci raw ñëpp waaye lu ko ab jaam boobu boppam lay joxañ boppam lay wax lay junju waaye lu ko ab jaam jiitoo ca yàlla ndax wa annal la bi yadillah yutihi man yasha wallahu dul fadlil hasim wallahu yaxtassu bi rahmati man yasha wallahu dul fadlil hasim yàlla nee na maa yore ngëneel ci sama loxo maay seet ku may neex ci samay jàmm di jël ko te ko ci sa loxo léegi nag kon man moom la taxoon mu topp sëñ Tuubaa moo di yàllay kese yàllay kese jooja nag bu fekkee mi ngi fi ba léegi ñu toppante te yàlla rek tax mooy ki yàlla def ci ngëneel lu mu deful ci yow nga nangul ko ko te yàlla tax loolu mooy dëgg-dëgg nangu dogalu suñu borom subhaanahu wa taala kon Maam Mor Jaara dafa nangoon dogalub yàlla mooy mag mooy magi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di rakam waaye yàlla def na ci sëñ Tuubaa lu nekkul ci moom mu nangul ko ko loolu mooy question bi ak mooy li ma sëñ Moustapha Dieng laajoon léegi ci émission bi bi ñuy jeexal ci ci rajo bi ci RFM mooy li sëñ Mountakha mujj a wax taalibu murit wërte itti woo dara lu dul ndigalul sëriñ bi a ngërëmul sëriñ bi gis nga ku baax ki am murit bis bu itti woo leneen lu dul ngërëm sëñ Touba nee na mën naa takk ay jaajam ak i bagaasam dem seeti leneen te xam ne doonatul am murit daf koo bind de isil muridu laa yuridu abada xayra ridar rahmani haysu xasada sëñ tubaa ko bindal boppam nee na saa soo amee beneen ité bu dul ngërëmul yàlla dama seeti leen taxam di doon duta amuri lu tax haddul irada bi xawli saada tarkul muridi ma alayil aada sëñ tubaa nag ni bu fekkee ba ngaa xam ndax dëgg-dëgg am muri nga wala déet sëñ tubaa nee na jàngal ñeenti melokaay ni ndax daje na ci yéen wala déet ma dénk leen ko bam ko waayee xam nga lu sëñ tubaa wax dafa mel ne dañ koo laaj ne ko lan moo tax nga way bayit yi sëñ tubaa ne damay bañ ngeen woru ñu ne ko mbacké lan moy waru mu ne moy ngeen japp ne yéen ngi ci dara ba ëllëg yamal xiyam fekk japp leen ci dara ñu ne ko acca bismillah mbacké wayal mu ni sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atu nasamtuha khawf ikhtirar khawf ikhtirar muy damay ragal ngeen waru ba ca njëkk mooy asidduxu ci lan fi mahabbati shaykh ba fan abadan Moy na nga bëgg sëriñ bi ta bu mu am sal moy di nga doon wax légui rek fay dellu suwat ci loolu na nga bëgg sëriñ bi ta yalla rek tax li wa ci lay ta'ala bool bëgg sëriñ bi ngir benn intérêt bul topp sëriñ bi ngir dara waaye na ko bëgg te yàlla tax bu mu amit période waaye abadan ba faaw boo xasee bëgg sëriñ tubaa sëñ tubaa ne na ca sax ndax sëñ tubaa ne ko mu bëgg tàbbi àjjana sëñ tubaa ne ne yàlla defal na ma lool ku ma bëgg tàbbi àjjana sëñ tubaa ne ne kenn rek laa yërëm ci kow suuf mooy ki ma bañ ndax saxaa uman lam yaxwani xat kutiba fii lawxika la sa yu fii di kutuba yàlla bind na texee di ca lawxul maxfuus képp ku ma bañ sëñ Touba wax loolu daani kon bëggal sëñ bi te bu ci ànd ak ngisal ba faaw waaye su mam tisaalu am ri ay sorat boobu laa doon wër mooy fu ndigalu sëriñ bi rote amati benn yitte bu dul daal di koy jëfe ay su warat bu tàngee ay su warat bu seddee ay su warat bu soxla yu bëree ay su warat boo féexee ay su warat boo xiifee ay su warat boo maree ay su warat boo gëmmentoo ay su warat boo jàppandee hay su warat fu ndigalu sëriñ bi rote bul amati benn yitte bu dul daal di koy jëfe sëñ Touba na laa tafxalu shay'an bi xayri fal isnu sartun fii xaboli sax ni nee na jëf jënn jëf lu dul nga teg ko ci ndigal ndax nangu jëf ci ab sart la ci nga am ci ndigal loolu la seexul xadim wax seex ibra faal ne adoom ah liy dàq picc mooy dàq ndigal mooy ax seex ibra faal ne ndigal caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi te boo ko benn yàq kannaar ba loolu la Cheikh Ibrahima Fall waxoon buñ demee ba toll ci jamono murid bi nag sëriñ bi joxe ndigal ñuy contesté nan sëriñ bi lii la waroon a wala sëriñ bi wërtoona nañu xam ne àddina yàqu na bukki nag bu yabee ponkal ca doxin wala yoonu mu ri kenn mësu koo yab ndax dëggu gi yoonu murit kenn mësu koo yab ndax force bi yoonu murit kenn mësu koo yab ndax Serigne Touba jaral leen seeni bakkan bu ñu demee ba nit am fitu nag taxaw fii Sénégal wax ci yoonu mu murit wala Serigne Touba lu ko neex ñu naan nañ ko bàyyi ak Serigne Touba nee na biraasu man baari seeni biraasu man loola waaye di léegi yow da nga nangu ab saay-saay jóg dëngmal sëb sëriñ nga naan naa bàyyi ba ba mu àgg sëñ bi bëreek moom ndax nee na kuy bëreeg moom mi ngi bëreeg yàlla loola ay teggin la yow koy jógal dajeeg moom mu jaar ci sam néew soog a àgg ci sëñ ndax sëñ Tuubaa dane woon roy leen saxaaba yi ndax ñooy seen bàyyi ci diine saxaaba yi lu leen yonente bi jaraloon kero xareb oxat wax naa ko léegi ñu jël seeni ginnaaw def ko muy pakkub xeej ji xarib oxat ba mu tàngee ba tàng ñu jëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci bopp ba jaaro bi mu tegoon ci ci ci ci ci mbaxanam koŋ mi dem ba dugg ci biir bopp bi saxaaba yi futteeku dooxal seen i ginnaaw banti fett di ñëw de dal ci seen i ginnaaw yónnate bi di mucc alxuraan tàgg leen inna laaha sara ci suratu tawba ay 111 ak 112 minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yàlla jënd na ci ñoom seen i bakkan jaay leen ko àjjana lan la leen gaaral yu xaatiluna fi sabilillah jóot leen xeex ci yoonu yàlla fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna daañu rey ci yéen de yéen da ngeen rey yéefar yi waaye ñooñu wax naan alayhi haqqan la leen suñu baram dëgg la la leen yàlla dal dëgg la fan fil qur'aani ci alquran wal injili ak injil wal furqaani wa tawreeti ak tawreet daani wa man awfa bi ahdi minallaahi ana kan moo gën a matale abdal suñu borom subhanahu wa taala kon nag fas sabsiro bi bàyyi kumul la si bàyyitum bi wa daalika wal fawzul aziim porte leen kenn par kenn attaayibuna dañ daan tuub alhamiduna dañ daan jaamu alhamiduna dañ daan sant asaayihuna dañ daan woor arraakihuna dañ daan ruko asaajidoona dañ daan sujoot aamiroona bil ma'ruuf wa nahawna anil munkari dañ daan digle lu baax day tere lu bon ñooñu nag wala haafizuuna li huduudillaahi falanceeri suñu borom yi fa leen yàlla rëddal dépassé wuñ ko un centimètre kon nag wa basiril mu'miniina lii mooy melokaanu sahaaba yi murid bu nekk ca nga war a roy waaye murid wërta yaafuus loolu nag bokk na ci la koy waral mooy toppub sëriñ ta yàlla taxul toppub sëriñ ngir mbaseeris la am toppub sëriñ ngir dafa bëri mbooloo toppub sëriñ ngir état yee gudd sëriñ mi ngir dafa am limousine wala 4 x top up sëriñ ngir dafa am soxna yu rafet sëñ tubaa nee na ku koy toppi ab sëriñ ndax nga sa bopp soytaane nga àndal seexul xadim nee na fa sayxu laa yuxaaliful musafaha fa man naha amra al murabbin tafa nee na ab sëriñ du wuteeg yonente bi ci dara ku ko topp jariñ man mam Mor Mbacke maa ne sëriñ bu la gën a bëgg àddina matul ab sëriñ sëriñ bu la gën a bëgg xaalis matulab sëriñ sëriñ bu attana xëccookub taalibeem ak kër bañ dem tribunal kooku matulab sëriñ da ngeen di xëccoo àddina moo ëpp la ci expérience sëriñ bu la gën a bëgg jigéen matulab sëriñ ab sëriñ yàlla la lay gën a bëgg ab ki yónni te mat la ab sëriñ lii man maa la ko wax te dëgg la yaakaar naa kenn du ko weddi kon nañuy topp ab sëriñ te yàlla rek ta gis nga bu dee mbooloo moo tax ngay topp sëriñ boo marlee ko fi ëppule woon ak ngóor soosu doon cëpp cëpp ki ñuy màggal journée internationale tox yamba boo marle la yaakaar naa 14 14 février xaw ma 11 mai. Kaceres Michael Jackson moom dégg naa danaan cëpp cëpp ñetti yoon mu fees dell ay millions ñoo taxaw xanaa kon kay kii mu ëpp mbooloo ñëpp mbooloom seytaane alaa ina xisba saytaan umul xaasirona bokkal ci xisbullaahi ndax alaa ina xisbalaahi umul muflixoona kon daal murit bi na tànn ab sëriñ te yàlla tax te mu tànn ki nga xam ne wóor na ko ne la sëñ Tuubaa nekkoon ma nga ca te bañ a topp sëriñ ngir folklore wala ngir aw tur bu ëllëgee yomal xiyaam perte dong ngay def kon ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax ci lépp loo xam ne dëng na ci ni nga ko waxee waxtu wee xatte site internet la waxtaan yu xëy na mënta gudd incha allah bu ëllëgee daañu ko gën a yaatal ñu ngi leen di gërëm bu baax leen sant yéen waa daara ji vision di gërëm it bu baax mbokk yi nga xam ne yëpp ñoom ngeen fi fekk muy mbokki taalibe yi du ma dugg ci lim xam naa ci kanam tuuti incha allah programme bi daañu ko continuer waaye sëñ laay sekk ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant mooy suñu mbokk bokk ci fami maam Amady Ndaak Seck ca Canaba sëriñ Seexu Amadou sekk sama xarit la gàmmo gi sax gàmmo foofu laa daan gàmmoo bi ma ñibbisee Touba nag ba liggéey bi xaw a sarse moo tax mënatumaa dem waaye sëriñ Seexu Amadou sama xaritu bopp la ku baax la walaay sama xaritu bopp la kon maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan sa tànk yàlla na doon tànk yiw yéen itam yàlla na yàlla yokk seen site bi ba mu gën a jëm kanam nag bokk ci sit yi gën a rëy ci àdduna bi sa doomu baay la kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant yow it borom xam-xam la ndax ni ma gisee nga di ko laajee question yi ci laa xamee ne boromum jàng nga yàlla na la yàlla defal tawfeex defal lu sutura ci barkeb Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk julli mbokk taalibe sama mbokk taalibe murid di leen siyaar bu baax di di nuyu bi bu baax di ko siyaare di féddul kóllëre kóllëre mag ñi di ko déglu bu baax ndax lii mu wax képp ku dëgg bëgg lu baax te muy dégg seew ngay murit di taalibe nga bëgg lu baax fa seeni tegu seen bu baax boo ko dégg dégloo jëfe ko euh, euh, maanaam njariñ la si daal waaw njariñ la ma waxtaanam képp ku bëgg lu baax rek boo ko doon déglu na la njariñ na la njariñ ba pare nga siy jariñe waaw loolu loolu lu am solo maa ngi koy déglu bu baax déglu waxtaanam si si rajo bu baax baax di di di ñaan suñu borom mu yàggal ko bu baax man la sëñ Abdoulaye Seck bokk Mourid Sadi di ñëwoon si màggal gi war am war bari ay wóllëre lool nak ay xarit ak ay sëriñ ak lépp sëñ Chablatif sama xarit la sëñ ñëpp nyep, sëñ Mourtala ak ñëpp ma ne woon bala maa fi ak jaar fi saare ko waaye waxam ji nga xam ne moom sëñ Tuubaa moom léppam juba la nga wax ak fay rek sëñ Muntaxa mi ngi ko doon wax alaaj maam Cerno màggal 2018 wax naa ko mu sëñ Touba foluwul foluwul foluwul amul amul amul amul amul amul dara caaxaan mus koo dégg mus koo gis nja ak njabootam tam si loolu la nekk kon ñi nga xam ni ay taalibe lañ yaakaar sëñ bi nan roy si doxalinu sëñ bi roy si njabootam waaw waaye màggal gi rek maa ngi koy wax wala lancé màggal Touba deux mille bii jàll du du deux mille dix-huit la waaw maa ngi koy wax ci kër Sëñ Touba gi nit waykat yeeg fokkat yeeg nit àdduna yu grand théâtre yeeg bois de nuit nataalam foo ges gis ko caaxaankat yeeg te kenn waxu si kon ñoom day yaakaar ne la la la la nekkee dëgg la te dëgg te neexul sëñ bi amul benn nitu àdduna bu fekkoon Sëñ Tuubaa doo jàkkaarloo ak moom di xalaatoo ko sax Sëñ Tuubaa sax sor ay doomam rek wala yenn sëtam yi sax am na ñoo xam ne kenn amul fitu dem si ñoom naan yaa ngi leen di way wala yaa ngi leen tagg léegi ginnaaw euh, yàgg nañ koo wax alaaj maam Cerno wax na ko fa ne si mun tax a dëggal ko léegi nag jëf moo des te jëf moo ëpp doole wax nañ jëf organise ko teg ko si yoon ni sëñ Abdou Lahad eh, kii yoon daan doxalee ñu indiwaat ko yeesalaat ndax nit ñi mujj jamono ji ñu toll xamuñu explication ak ak ak masla ak ak yooyu ku wax loo wut li ko war a saafara mi ngi fi am nañ ko wax faju dara ku caaxaan jeexee dëgg des ku li xaq wala kaan mu ron bu ñu waxee ba àdduna bépp ni kii li mu wax dëgg la te jëfin ko amul sens. nañ ko jëfe organiser ko woo bàyyi faali wax waxtaan ñu ko war a waxtaane ku def lu yoon si dëkkub sëñ Tuubaa wala nga wax la wërta sëñ bi wala ak waykat yi itam ngay da ngay benn clip gis ki sol bàyyi laat gis ku sol kurus gis sol déguisement murid daal si tënk di di paqar di fecc tamajeeg yi sax yooyu sëñ yooyu yëpp dañ ko war a interdit dañ ko war a interdit sëñ Tuubaa fóol fóol fóoluwul waaw waaw na taalibe yu góorgóorlu ku mel ni yow sa waxtaan wi nga xam ni si si si si si njàngalem sëñ bi rek ngay wax ngir ku ko déglu bëgg lu baax jariñu si bari si jane yàlla si yàlla saxal yàlla yàggale bu baax sàmm la sàmm taalib yi fi toog yëpp ñaan suñu borom yàgg ko fekkee ay at at si barke borom Touba.